ginnaaw bañ sant yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam tàllal suñu loxo suñu borom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy borom man-man te mooy borom sañ-sañ ñaan ko ci kattanam googee ak man man mboobee ak sañ-sañam boobee mu gën a indi mu gën a yokk jàmm ak déggoo ak dal ci réew mi te gën noo itam delloo si suñu sago bañ ànd ak suñuy sago bu baax a baax ndi xam ngir xam ne adduna sii day kenn koo xam ne mën ngaa wax ne la ma ci am maa ko amal sama bopp amul wala boo ko waxee boobee xamal ne am nga lu rëy loo wax ne da nga moom ëllëg ci kanam suñ borom kon nag mbokk yi nañ gën di rafetal waxtu wu nekk suñ mbokk gi nga xam ne moom la suñ borom def ci suñ diggante te wax ne mbokk googee la la la ca war mooy waxtu wu ne nañ nañ koy jéem a jagal di ko jéem rafetal wax na itam nañuy sàmmonteeg waxtu wu nekk wax ak yi nga xam ne moo dox suñ diggante ñun doomu aadama yi rawatina nag ñun ñi nga xam ne ñooy jullit yi looloo tax suñ borom ngir sàmm sàmmonteeg ak yooyee ak sàmmonteeg loolee nga xam ne mooy mbokk yi dox suñ diggante mu wax nuñ ne kenn ku ngeen di waxal ku man di doon na ngeen di ak moom ci lorof ci wax ci wax ji rafet ak defin te jëfante jëflante moom ci jëf jëflantiin jëflantiin wu rafet waaye dafa mel ni jamono ji ñu toll nag dañoo nekk si jamono joo xam ne wax yi ak li nga xam ne nee nañ wax nañ nangam ak wax na nangam ji daa bari ba nga xam ne loole sàmmootuñ ci dara mel ni nag bañ loolu ñu nekk dafay wane ne ñun dañoo réere wala dañuy jéem a réerérelu dansé bi nga xam ne moom la suñ borom wax ci képp koo xam ne yaa ngi wax loo xam ne teguwul fa mu war a tege la lam lay jural wala ngay seere loo xam ne seereer sa teguut fa mu war a tege lam la war a jural looloo taxa suñ borom wax ne na ngeen sori waxtu wu nekk lépp jëpp wax joo xam ne doonu teguwul fa mu war a tege wala jëpp seere soo xam ne teguwul fa mu war a tege looloo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis mu toog di toog ci saaba yi ne leen kaay ba wax leen nag bàkkaar yi gën a rëy ci suñ kanam suñ borom ñu ne ko loola day ñun sawar nañ ci xam ko ndax fas yéene nuñ ko tere nuñ ko sore ndax ni nga xamee ne ni la yonent ni la saaba yi nekk woon mooy ñoom dañoo doonoon ñoo xam ne ni ñu ko nettalee bépp aaya boo xam ne suñ borom wàcce na ko bala ñoo def dara dañuy jéem a jëfandikoo aaya booba ci ni ko suñ borom wàccee ak ni mu leen ko digalee loolu nag moo tax ñu bëgg xam li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg leeral ci bàkkaar yi gën a rëy ba boobee nag ba mu leen waxee ne bàkkaar bi gën a rëy nag mooy nga boole yàlla ak leneen wala nga gis yàlla ak keneen loola mooy bakkaar bi gën a rëy ba ja teguwaat nag mooy nga nit ku dog ay waajuram ña nangu leen topp ni nga xam ne leen war toppee ci di ko suñ borom diggale loolee nag ba ko waxee ba mu waxee ne bakkaar yi gën a rëy mooy bokk boole yàlla keneen wala gis yàlla ci wala gis keneen ak ci sa digganteeg yàlla wala nga doon koo xam ne nanguwoo topp say waajur loola nag ba mu waxee ñaar yooyu ba mu koy wax dafa dafa dafa dafa dafa mel ni ku sóonu ci dara waaye dafa jóg toog mu jógee toog daal ne nag am na ñeneen yoo xam ne moo gën a rëy bala bokk na ci bakkaar yi gën a rëy loola nag mooy wax ay neen ak seere neen wax wax joo xam ne ko fenn ak seere seere soo xam ne tegoo ko fenn loola nag ba mu ko waxee xam na ne dañoo bëgg a woon ne lii dafa mel ni lu baree bari la te ñu bari duñ ko bàyyi xel loola tax nag ñaari baat yooyu muy wax wax joo xam ne neen la ak seere seere soo xam ne tegoo ko fu ko war a teg mu baamu ko ay yoon yoon di ko wax di ko waxaat di ko wax di ko wax di ko waxaat ba ñi nga xam ne ñoo toogoon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne moom day sodd na ci wax yi ba suñ ñu sañoon day buñ sañoon day mu noppi ci ñàkk a waxaat lii ay yoon loola nag moo nuy moo nuy won kon seere seere soo xam ne teguwul fa mu war a tege wala wax wax joo xam ne teguwul fa mu war a tege lu rëy rëy la lu mat di moytu te jafa mel ni jamono jii ñu toll nag dañoo nekk ci jamono joo xam ne daa mel ni làmmiñ yi moom dañ leen a boyal wax leen ne lu leen nax wax leen fa mel ni itam am maanaam saaga wax nit ab safaan wala won ko ne ko yàlla na wax ko ne ko yàlla nga tuskare wala yàlla nga génn ci ci yërmande suñ borom te xam nañ yërmande suñ borom yàlla kepp moo ko boobu. boole bokk na ci yi nga xam ne itam siiw na ci jamono ji waxtu wu nekk dañuy dégg ay wax joo xam ne yow mi koy dégg da ngay daan jàpp ne tey wala suba Sénégal dana takk yooyu nag doon yoo xam ne yu mat a bàyyi xel la ndax lii nu koy won mooy yonent bi sallallahu alayhi dañoo xamal ne képp koo xam ne wax nga ab safaan ab jullit. na nga xam ne génn nga ci diine ji képp koo xam ne itam da ngaa jóg nag gàddu sa ngànnaay jàkkaarloog ab jullit na nga xam ne bu boobaa moom génn nga ci doonatoo ab ab jullit loolu nag kon mu doon loo xam ne mat bàyyi la bàyyi xel la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñu xamal ne itam am na ab jaam ab jaam bu fekkee ne dafa ñaan yàlla ab mbokk bu jaamam nee na ñaan yàlla googee mu ñaan suñ bo day daal di jóge ci kaw suuf jëm asamaan bu demee asamaan asamaan tëj ay buntam ba du mën a jàll mu daal di dellu siwaat ci suuf bu dellu siwaatee ci suuf yi itam suuf day daal di tëj ay buntam ba du man a jàll lu bu ko defee nag ñaan yàlla googu nu muy def mooy daal di xool nday yoor xool cabooñam gisut fenn foo xam ne fu a wàcc la mu du mu daal di de lu muy defa mooy day daal di dem ci ki nga xam ne moom man ñaano ñaanoon yàlla bu fekkee ne la taxoon ñu ñaan ko yàlla mi ngi ci moom boobu day delluwaat ci moom bu fekkee ne nag del la mu koy tax mu ñaan ko yàlla maanaam nekkul ci moom day delluwaat ci ki nga xam ne moo moo ko ñaanoon yàlla kon mu doon loo xam ne lu mat a bàyyi xel la lu mat di daw la ñaareel bokk na itam ci li nga xam ne lu mat a bàyyi xel la te lu mat a daw la mooy waxtu nekk ñuy siiwal ci doomu aadama yi ay melokaan ay jikko ak melokaan yoo xam ne yu juunu la ñu di ko te jubluwul ci dara lu dul bëgg a yóbbu xel ni xeli nit ñi ak bëgg leen a jaxase rek ak bëgg andi fitna ci doom diggante jullit ñi te loolu kat suñ boroom rëyaloon na ko ba wax ne ñi nga xam ne dañoo doon ñoo xam ne waxtu wu nekk dañuy sulli ay ay ay jax-jaxal dañuy dañuy sulli ay wax yu ñaaw ci te la ji jublu ci diggante jullit ñi ngir bëgg yàq seen i diggante ñooñee nañ xam ne day yàlla du leen bàyyi ci àdduna si képp ñu du leen du leen xaaree al ëllëg àllaaxira waaye fii ci àdduna si la leen di war a njëkk a wane li nga xam ne moom la leen war a def bu ëllëgee itam ñu daj ñu ñu dajeeg moom te ñu xam ne nag yàlla moom day doon na koo xam ne képp koo xam ne yaa ngi fas dara te jàpp ne xamu ko moom xam na lépp dara réeru ko lépp jëpp wax joo wax ak jëpp jëf joo jëf am leneen loo wax ne moom laa ci jublu wala moom laa ci dara yàlla moom xam na la nga ci la nga ca dara xam na li nga ci jublu kon yàlla li ñuy wax mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam doon na wax ne ab jaam day dana wax benn baat boo xam ne ba mu koy wax maanaam amu ci lu ko leer loolee nag baat boo boobee mu wax te leeru te xamul ci lu ko leer waaye da ko wax rek ngir am na lu mu bëgg moom nee na kookee na xam ne dana tarxi danañ ko tarxiisal ëllëg ci sawara ci tarxiis goo xam ne dana fa fa muy fa muy fa muy yeme ca biir bu tarxiisee mooy gën a sori li nekk diggante penku penku ak kon nag yàlla nañu suñ borom mi nga xam ne mooy borom ndimbal te mooy borom jàppandal yàlla nañu gën a delloosiwaat ci suñu xel gën ñoo delluwaat di ñoo delloosiwaat ci njub gi nga xam ne moom la ñu tegtal tey bëgg ñu dox ca te mosul nu ci lépp loo xam ne day andi ak bew wala lépp loo xam ne day andi ak réer loolu suñu borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañu ko defal aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri al muslimina fastaghfiruhu innahu huwa al ghafur rahim wa ma ala rasuli illa al balaghul mubin allahuma salli ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi wa sallama taslima